comme murit bu nekk euh, kenn ku nekk amoon lu dul la nga am te ñun sëñ Tuubaa rek la ñu am loolu ñu findi ak it dikkoon doon siyaare si di jaale si ak di yeesul si nag doon joxe suñu bopp addina ak àllaaxira te xam ne ñun kenn duñu moom ku dul sëriñ Tuubaa si moom la ñu tàmbalee si moom la ñu yem suñu gis-gis jëllu ko sunu gis-gis moyu ko sunu bëggit moyu ko sëriñ Tuubaa rek la am loolu moo ñu fi indi ñu dikkoon doon siyaar si ki nga xam ak di ko jaale ki nga xam ne bàyyi na fi tey lépp Serigne Touba taxawal fi Serigne Touba samp fi mbirum Serigne Touba def si murit yi murit yi dignité ak personnalité ak li nga xam ne kenn su wax baree du moom su jëf rëyee nag moom muy Cheikh Sidi sëñ Cheikh Sidi Maxtaar mi fi bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko nag bàyyi fi ki nga xam ne xol yëpp na nañu si bëgge ko ak nangul ko ak xam ne na mu toppee woon yàgg a toppe yàgg a nangu noonu la ko àddina bépp di nangule mm. yal na aw am am yàgg ba mu àggale naal yi nga xam ne moom la fi magam ju baax ci bàyyi ba mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd koog moom si dara jëy Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima jërë leen jëf tuwaat kan